Bismillah! fàtte ngeen corona bi dee waaye moom de mi ngi rey libération yi ne kaay ne ñaar fukki doomu aadama ak benn tey ñoo dee ci week-end bi la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent tey cinq cent quarante neuf cas maa la wax waaye région yi dee jot nañu kon seeni wax see pikir yee dem na Dakar Times gis nga pikir yooyee waaw dama ne la pourtant am na njariñ de parce que nag maanaam boo pikiroo lu ci tolloo ñaar fukki fan ak juróom-ñett waaw jàppal ne yaa ngi ak assurance ah, waaw yéeni kaa gi ne te bépp doomu aadama boo xam ne maanaam pikiroo dee dootoo tukki de ñi nga xam ne dañoo war a dem Rome suñu mbokk chrétien yi ne dañoo war a dem ca Màkka ga suñu mbokk julit yo waaw jàpp leen ne ku pikiiruwul nag ci vaccin yi lée doo na bépp boo xam ne kon bëgg ngaa pikiiru ñaxu day danañ la ko defal laata 2022 yéene kaay gi ne président Macky Sall day day bokk ci sénégalais yi xam ne ñoom la ñuy njëkk a pikiir looluy dëgg direct news de waaye nag gis nga pikiir yi nga xam ne indi nañ ko day laaj yi ci samp bari na de lool laaj wu njëkk mooy lan moo tax ba Abdoulaye Diouf Sarr mi lé publier ne waa Chine dañ ñu koo may ba pare daal di dindi loolee ca saasa lu tax ba mooy waa Chine dañ ñoo may garab yi lée wala dañu koo jaay ñetteelu laaj ba mooy lan moo tax ba Sénégal ci boppam kon li ko jëndee gën a seer yeneen réew yi ñeenteelu laaj ba mooy pikiru chinois yi lée organisation mondiale de la santé d'accord na ci waa wala déet juróomeelu laaj ba mooy waaye yan nit lañ war a pikir juróom-benneelu laaj ba mooy lii ñu ñu koo may jékki oh, koo jënd ci ñaari milliards ak ñaari téeméeri millions juróom-ñaareel bare bari day waa Chine dañ leen koo may ca jamono joojee nga xam ni corona gaa ngay rey waa nguur gi day waaw ñenn ñi daal fi mu nekk nii dañoo bëgg a rey Ousmane Sonko politiquement tribune yéene kaay glace en tout cas Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy waaw ca commission adog ba day tekki nañ seen ndomba tànk laa la wax ñoom ñaari député yooyee Guirassy ak Bamba waaw ci Vox Populi ah nee nañ waa Benno Bokk Yaakaar yooyee nañ leen bàyyi seen cëggal Abdou Mbow waaw ne tekki ndomba tànk bi nga xam ne ñoom ñaar ñi ne tekki nañ ko seen day du wàññi dara ci liggéey bi la wax aa wàllu manipulation la ñuy def député Abdou Mbow yemu ca ndaxte fàttali na kon gaa ne leen ma ne ma dikke ñaar fii la tekki woon ndomba tànkam kon ba ñuy lalli malaanu kirangeewu xalifa sax fan la mujjee benn source aane tekki ndomba tànk kon te commission ad hoc lan moo tax ba waa PDS ah ñoom it ñu yi daaw da càmmi ne gisee bu doon ci avion la ñu ne dañ naan zone de turbulence la ñu nekk laa la wax mbir ma yëngu na lool ay dem boo jëy ci seen jotaay ci seen TV ci tribune yéene kaay ah nee gis nga coowal Sonko bi lée kompoloo la bu rëy parce que Macky Sall daal fi nekk nii li mu bëgg mooy képp kuy adversaire politique am rek mu tëj sa gémmiñ gi wax ay dem boo jamu ca parce ay dem boo nee ngir wan la gis nga yàlla ji ci boppam Ousmane Sonko la àndal ci dossier bi waaw dafa am benn avocat wu Sonko day boo xam koy yàqatey toroxal ko ba mu ne toot totoro laa la wax waaye nag duñ ko condamné duñ ko tëj parce que buñ ko condamné réew mi tàkk waaye danañu ko yàq ba mu ne wisiŋ dégg loolu maître Abdou Dialy Kane di avocat wa Adji Sarr ci leesi ko yéene waaw nee na ñi suñ xel dal parce que ñi ngeen preuve yëpp te buñ demee ca tribunal ba rek ngeen xam ne Ousmane Sonko mii du dara man nag sama atte duma ko wax ci mbedd mi de kenn laay waxal mooy juge moo ay damboo ci tribune yéene kaay ne te walaay lii gisoon naa ko muy dikk xëj na nag Ousmane Sonko dama koo ëpp expérience ci wàllum politique laa la wax ay damboo ne lii gisoon naa ko muy dikk keroog ba doyen des juges waaw ne dossier 94 milliards yi lé loolee jeex na ay damboo ne lii gisoon naa ko muy dikk de ba ma gisee benn ne Ousmane Sonko mooy chef de l'opposition bilaay lii lée ko muy dikk keroog bi nal ko ba mu moo rumux réduire l'opposition muy dikk termine yéene kaa ne Adama Faye day responsable APR ca waaw yëkk na mel ni xamee politiciens yi laa la <laughs> waaw waaw Adama Faye ne coow li de ñu tuumaal Ousmane Sonko day am na ñoo xam ne dañ koo jël ngir yàq der ngir jëw ngir liquider ab waay politiquement yàq dundam moralement te kookee citoyen sénégalais la Adama Faye ne te yàlla xam na ne ñaata doomu Adama rawatina nag ay kilifa def nañ lu gën a yées lii Ousmane Sonko ñu koy tuumaal ba ci ay kilifa yu nekk ci nguur gi laa la wax gorowu président Macky Sall ba yemu ca ndaxte Adama Faye nee na buñ ñëwoon ko mës ta ne bàkkaar sa loxo ca kaw maanaam sàndil yu nekk ci kaw a kaw walaay làmb ji bu ñu yëkkati loxo duñ sànni xeer am na ci ay politiciens yoo xam ne day dossier bi lée walaay occasion la ngir ñu wan waa réew mi yëpp ne politique day du mbirum yàq der waaye defar sa gox la te xale yi tamit dañoo bëgg royukaay ci ëttu politique bi waaye politique nekkul defante dóorante ko joti kurpeñ politique tamit baalu ca àq da caa am moo dal tey Ousmane Sonko mi ne waaye député yi tamit noonu la war a jéggalee parce que ñoom député yooyee dañoo war a PM bi nga xam ne du def a lu dul xajamal réew mi rek Adama Faye ne bu dul dara bénéfice du du tënk moo ko def ak def ko warul tax nga jël koo xam ne dafa am jabar am famille am ay doom am ay soppeeki xarit nga bëgg a deram te ca jamono jooje commune baa ngi nii di rey nit ñaa ngi nii di war a dépense jafe-jafe askan waa ngi nii taxaw kon nag profité ci ay erreur adversaire politique loolee mënulaa la république waaye loolee te mënul la république wala ab a wax day jeex biram xujaloo day ci évidence yéeni kaay waaw daal dinay tontu na commissaire Kayta de parce que nee na ko non moo commissaire yow bett nga ñëpp ndaxte nag yow commissaire Kayta yow mënumaa lii sax lii nga bind laa wax ndax dama laa yërëm nit koo xam ni dañ laa xamee woon ci gore yow commissaire Kayta tey nga taxaw di sosal Ousmane Sonko mi le koo xam ne dañ koo tuumaal ay tuuma yoo xam ne teguñu ko fenn ah commissaire Kayta yow bett nga ñëpp évidence yéeni kaay de coowal Sonko ak gi lé ak kaaraangeew réew na boppam de ay ngànnaay yoo xam ne lañ fa fekk lay maar day taali yéen kaa gi ne defarub marsen dumbe joob gële ca Jurbel waaw DG wu AGETIP day El Hadji Malick Gaye ah moom day mode fast track lay def boolewul dara ki coow su saane waayew waa ji ne ab yonente la nag ak juróomi taalibeem day jàpp nañ ko mooy abib mi ah nee na mouvement diwaanu Bamba Saliou Kara eh way Samba nee na mooy yonente yàlla Iisaa allahu akbar ay abib mi ñoo doon bëgg a tawaaf ca jumaa ja ca Tuubaa réew mi <laughs> Sénégal de di nga fi gis lu ne waaye comme que pétrole baak six mille milliards am la ñu jël gas suul ne kenn taqul waaw bu leen dara bettati parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal